<coughs> monsieur e le ministre maa qui qui ci si jitaay Il yaa sa ministre le vice-président de l'Assemblée nationale avec les différentes autorités qui constituent la délégation honorable que le chef de l'État m'a envoyée. Je suis fier

avec maman. Ma langue canale, par la connaissance que j'ai de la spiritualité. Oh. man dama ko kottangoo. ku xamul yàllaay kottangoo man dama kottangoo. moo tax le passé. donc on peut se souvenir donc man du ma contre góor déedéet man dama yàllaa ma dimbali man dama xam mbir mi yàlla moo tax président Macky Sall bu may sant Serigne Saliou bii nga xam ni moom rek ma jaral sama paquet oh. mu yónnee ma délégation le président de la République n'a dans le passé jamais un chef de l'État n'a envoyé une délégation